jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net ñoo ngi leen di nuyu bu baax baax leen siyaar taamul bi ngeen taamu leeral TV ak leeral point net mbokk yi contentement la ak mbégte la. mbokk yi tey ñoo ngi ci unité 22 kan moom ci woo Anaconda dox si diggante moom ak alliance Birame di combat boo xam ne combat bu doy waar la combat bu neex kon mbokk yi laay naxate àla àndaloon taalibe Serigne Bamba bi kon dañu leen di bàyyi ngeen dund ambiance. après ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy li nga xam ne mooy open press moo koy diggante alliance bi dem ak Anaconda combat la boo xamante ni combat bu doy waar. Anaconda nag mbokk yi champion la ndaanaan la nañu bàyyi laay naxataa dugg ci biir ñu dugg. mbaru naxataa. kii mooy mbaru naxataa. kii mooy champion bi nga xam ne suma cameraman bi da koo bëgg. fonk ko lool loolu yàlla ko def muy sama rak. waaw toolu yàgg dëgg la. bu doon borom baax doon sama waay. sama mbir dañuy taxaw bu baax. dëgg la di nga jaajëfal bu baax. Dame Sène yàlla def na combat bi yàqu na lan ngay wax say supporter. waaw sant yàlla parce que tamit jaamu pexam yàlla dogalam combat bi yàquwul dañu faa renvoyer rek xam naa ba su ko dugal loolu. maanaam bis bi. bis bi mu waroon a bis war am amul mais ñu ñaan yàlla liñ ñëw gënoon ñu li ñu passé nii di ñaan suñu bopp dafa ñu dab ñu ci war a nekk ñu ci yoon bi nekk ñu ngi ci saa buy xëy entraînement di des nag di xaar la jour suñu borom dafa ñu ndab mais ñun moom suñu côté nice lan sa adversaire waaw nice ah di ko ñaan di ko ñaan jàmm di ko ñaan sama bopp ñu gisee yaa ngi moom sa diggante ak moom gis nañ eh, keroog yéen ñaar ngeen def benn saafante bu doy waar ba ñëpp di ko rafetlu waaw yëpp lamb la sport la lamb sport la taw ñu ñaar wax dëgg yàlla def na ci lamb loo xam ne waratul waree lu yàq lamb dëgg la tamit noonu moo xam nga lépp da ngeen di fair play mais du tere su di jour bi waree xeex dañuy xeex bu waree bëri dañuy bëri nga ne maa la wax loolu Dame Sène waaw dégg naa ca biir wax nga ne combat bi arbitre moo leen di tàqale waaw arbitre ñu tàqale moom su arbitre suul du ko bàyyi ma jeekoo foo ma rey na ma rey su ko mënee rey na ma koy rey. su la mënee rey na la rey boo ko mënee rey na ko de. dama koy rey daan baat bi sax dafa ñaaw mais lu mu mën na ma ko def man lu mu mën na ma koy def. ah maa la wax loolu. kon jeex na jaajëf jërëjëf su la waree. maa ngi lay fay ba biir loo ne sa fay ca la ma newoon rek bëgg fukk juróom tama ñaari ma am benn ba dem. tay da nga soof nag si de réew mi waaw waaw waaw ndax da nga xew réew mi fam nga soof boo sooful doo xew boo soof <laughs> fam nga ñàkk fayda daal tey ñu gis na si euh, bisu Anaconda bi mu dox ci moom diggante moom ak alliance Birame tey sa diggante ak Anaconda waaw dañoo dëkk mu nekk sama gaan nekk sama lépp su ñu amee muy ñëw di jàpp ci entraînement yi contact yeeg yëpp kon bu xewlee dañuy bàyyi lépp luñ jàpp ñëw teewal ko ndax moom bàyyi faal la quoi di ko ñaanal yàlla mooy ko ñu xam ne ñoo ñu gis ne làmb ji semaine bi passé dañ ko ndax xew jamono ji am ci réew mi loolu ban gis-gis nga si am. waaw c'est normal ndax àdduna moom ah moom loolu ñoo ànd eh, booy eh, situation dëkk bi moo ko laajoon xam nga coow lu xam ne yàgg na mun naa ne presque deux an trois ans xaw quatre ans ñu koy wax ci wax problème ay détails yoo xam ne booy am lu ñu dencoon seen xol. Euh, ñi si nekk euh, ñi nekk ci état am luñ denc ñi nekk ci opposition bi tamit am luñ denc seen xol euh, ban nañ ko ba ba coow li bare ba bari booy yi nga xam ne amoon luñ denc lii rek lañ mënoon a def jàmm am ñi nekk ñi ñi ñi mën a saaga saaga ñi ñi a saa ñi mën a taal taal buñ deful woon lii coow li du mus a jeex. en tant que en tant que di ñaan yàlla xam nga comme ñi gaañu si ñu si génn àdduna yëpp ci manifestation yi ñu ngi leen di ñaanal. sa fi ñu jëm gënal leen fi mu jugee te boo xoolee ay xale yu ndaw yoo ay xale yu ndaw ñoo xale yu yoo xam ne tey jii ñoom ci logique dañoo waroon a jàngi ñooñu amaana xamuñu sax méttiwaayu dëkk bi xamuñu tolluwaayu dëkk bi boo ci woowoon na ko coow li la sax xamu ko bilaay ñu bari na ñuy manifester te xamuñu lan la lan moo xew lan moo xew ba tax ñu manifester ni ñu daan manifester bu njëkk ak manifestation bi yàq alalu réew mi yàqu-yàqu yi bari na waaw nee naa di ñaan yàlla daal jàmm ndax jàmm ndeysaan ci la lépp xaj la lépp xaj xoolal niñ annulé ndax problème yi ay programme yoo xam ne ay nit investiroon seen xaalis ay millions yu bari ay nit ko ngay gis nit ku jaayante ba am benn place am booy yu ñëw taal ko dangay gis maire bu jaayante ba daaj taabulam bu bu six mille booy jël ko taal xam nga kenn xamul ginnaaw amaana ñu ñu yàq sax suñu alal dañoo mer rek waaw dañu naan jeunesse bi ñu gën a calmé te xam ne jàmm ci la lépp xaj quoi. waaw ñoo si jàmm. lépp jàmm. tawfeex wàccaayu bis bi. waaw bés bi waajal nañ ko comme ni ñu doon waajalee yeneen bés yi rek bés bi moom mënul réussir ñun parce que alliance bi moom mooy loolu taxuñoo sax jóg. waaw ñun mooy loolu lamb moo ñu tax mais xaaree na tiit alliance bi rek. kan day na tiit kay. doomu séeréer bi la day na tiit lan la loo leen laalante doomu séeréer bi la. yàlla nañ laalante yàlla nañ laalante moom alliance biram yàlla nañ laalante. nga ne alliance biram du dërëm buñ ko tàncee dina xam du dërëm du bin ñoo ko mën fop ëpp ko fi téeméeri junni yoon fu nekk la gars yi dugg mbapat alliance biram ngay wax de. alliance biram du dara. alliance du ragal de. alliance la. kan ngay marié alliance alliance bi dañ koy tax dañ koy tax. suñu wóor la eh, du dara. bilaay bi buñ ko jàppee rek. buñ ko jàppee da ngay def lu nga ne boo bee ko dàq bëre. ëpp ko doole daa ko xeex rek ñun suñu mbër bi duñ ko wax sa ay defal ni boo demee defal xam na la nga wax demal bëre nañ laalante rek du moromam mbër ba lay sax pour man amagul combat aran pour man lii mbapat la sax jërëjëf mbokk yi Sa Touba maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay ci maa ngi sant Serigne Sall sa digganteeg mbëru parcelles yi sa ñoom ba lu ñu xewle yaa ciy njëkk te yaa ciy mujj loolu démb la du tey ba dara du dara la man ñoom la ñoom luñ nekk maa parce que man lu ma nekk ñoom ñu ngi ci loolu rek moo ma fi indi te ñoom ñëpp samay frère lañ wallaahi. mu am combat bu rëy diggante moom alliance bi dem fan nga toll. di ko ñaanal yàlla rek comme niñ doon taxawoo ñëpp rek yàlla defal ko ci ndam te rafet nañ ci njort bu baax incha allah. Zatou Touba tolluwaay réew mi ak gone yi en tant que porteur de voix boo waxee réew mi déglu la tey lan ngay wax ndaw ñi. waaw loolu bëgg naa cee wax nag mais doo mën a tey lay doon parce que bëri na loo xam ne faaw ñu leeral ko sénégalais yi xam ñu ngi toog nag kenn yëguñu ci dara depuis boobu ba léegi te rek moo fi war a am nga xam ne ñoo waral jàmm ji nag buñ toogee incha allah danañ leeral lan moo waral lii yëpp incha allah ak li ñu ci yàlla wan. tolluwaayu combat bi. combat bi comme yeneen rek barke sëñ Touba. saa moom suñu xel dal la si moom. saa bu dégloo père rek Birahim Ndiaye entraîneur barke Serigne Touba suñu xel dal si moom di wax nag alliance. leen rek la leen rek na teel a ñëw baaxu baaxu bi ñu daan ko daan jërëjëf Père Birame Ndiaye di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu waa Penda bu baax a baax a baax su baax surtout fii may defee open presse bi di leen jégalu su lu ñu yëg ak lu ñu yëgul parce que dañu ko yombalal ñoom quoi ñun lu ñu woote dañu si bàyyi te koñ bi xamoo ndax am na ku fi feebar xamoo waaw di leen jégalu bu baax a baax waaw di leen xam ne xamal ne xam sport la rek moo demee nii waaw di leen jégalu wér wér di sàkku si bëgg journaliste yi fi teew yëpp dañoo dagg seen yite ku si nekk mënoo nga am foo jëm nekk say yite bopp bàyyi say yite ñëwal ñu te bu dul woon ak yéen yaakaar naa ñu kenn xam si làmb kon gàcce ngala maa leen di ñaanal lu ngeen bëgg yéen xam yàlla na suñu borom defal jaarama tey yëg-yëg bi lan lay laaj nga def open press kenn ku ne xam na ne dëkk bi neexul mhm. ñuy profité rek di jaale mboolem koo xam ne génn na ci àdduna suñu borom xare ko àjjana ñi yàlla dogal ñu tëdd ci kaso waa ma ne mbëri sax yëg-yëg bi lan la. waaw sax ñu ngi naan ñu ngi jaale ñi nga xamante ne li fi xewoon bi fan yi nga xam ne yaakaar naa ne feneen lañ ko doon séntu la teranga wax man maanaam lii ñuy def nit ñi ñun xamuñu ko te fii Sénégal dëkk dafa wuteeg yenn dëkk yu bari parce que fii dafa am ay kilifa diine am ay tànneef ñoo ne ay doomu aadama yàlla moo leen tànn jiital leen kon ñooñu ku rusutul kenn nga rus kilifa diine fi nekk waaw di jaale ñi nga xamante ni ñoo di leen ñaanal suñu borom xaaral leen fi daw ñi si blessé yàlla leen suñu borom sàmm wéral leen ñi si dem kaso ñuy ñaan ki jiite mu dawalu yërmande parce que abar doo da nga jàpp ne kooku nga tëj mais askanam yëpp nga tëj parce que yaayam dootul toog papam dootul toog famille dootuñu toog waaw ñu dimbale gars ñu jàpp quoi ñu bàyyi leen ñu xam ne Sénégal benn bopp mm. Sey di bëgg waa Grand bu baax a baax a waa Grand Yoff di leen béggee Cambérène ñëpp di leen nuyu quoi ñëpp benn la waaw c'est la famille la demee waaw. ñu jëm ci takkusaan gi nag gars yi bu ci am question rek mu ñëw ah ñu yaatal sa diggante bu yàgg ngeen war a na bëre tey yéen a ngi doog te nee na combat moom wax rek nga si am. waa parcelle moom ay ay noosam la. waaw yaakaar naa ne moom liñ naan li ay wax rek laa si am dañoo toll si wax ku waa moo tax ñu doon wax. toolof dafa ne kuy nelaw bañ gome la boo moom loolu ko dal maanaam day xoole kon moom loolu la waaw si wax lañ toll moo tax ñu doon wax ñun kenn xamewuñ sax ay wax yu bari nii nekkuñ sax si yooyu mais signature wax la mm. noonu la demee mais bu ñu demee si jëf ji ñëpp xam nañ ne maa ko moomee mm-hmm. man làmb sama noos la xeex xulo xeex xeex rayante ak lépp man sama noos la loolu làmb moo gën a yomb si lu ñuy dund ñun ba ci bisu dimanche bi loolu lu yomb la incha allah Baye Fall bi ngay bëre du ma ne Baye Fall sax ñaari Baye Fall mu doon si làmb ak adversaire mu daan ay wës jàmbaar ay bekaay daan ay champion ci biir làmb bul ne ma li ma fi def baal ba ma dem farba est-ce que jëloo risque yow kii Anaconda. waaw man góob mu risque man li may dund man li may dund moo gën a métti làmb muy Baye Fall sart yi ma tegal moo gën a métti làmb làmb méttiwul war a sant waaw du ko xaar la nii rek pour teral waajur yi parce que Anas Biram la ndaanaan la maa ngi koy dégg nag nawloo ma mais bu fu ma romb kaboo la may woowee incha ah, bi dama gis waa ci combat ba noonu ngay man yéen yaakaar naa ne nit du nax boobam ba du yenu mooy xam ne lu boobu attan te ñun naxante wuñ yéen ñëpp seetaan ngeen samay làmb yéen man mosuma taxaw di xaar mbër du ma arrière mbër xaw ma loolu parce que maam maree ma say alias biram jàmbaar la champion la mais fort la quoi moom man pili fort lay bëreel loolu la xam nga fort kenn du ko gis di jël pili fort kenn du ko gis di jël fort agana foor yow bu wér a wér ni nga agressé ay mais pili fort taxul fort faible quoi fer fort mu ngi fa mu nekkoon ah. waaw mais pili fort xam nga mais est-ce que adversaire yi nga bëree loon ay ñoom booy Diouf ak ay fala rek ay réparé rek jaatu ñoom est-ce que ak alliance benn la alliance bi moo gën a méttee gum ñëpp ñi ma war a am parce que ñooñu daan naa leen bañ féete boor moom daanaguma ko kon moo gën a métti dañ koy jox cër jox ko li moom mais man li bëri di bañ laay def bu arbitre siffle dama lay diriger force nga bëgg nga bañ dama lay diriger force bu soobee yàlla suñu borom bu soobee subhaanahu wa taala bi rabi ansi dama koy diriger. ñaata minute waa parce que ay minute lañ daan waaw ah, man man may wooy anaconda amet 5 secondes laa tuddoon ci mbabat. amet 5 secondes. laa tudd anaconda ci làmb. sa papa am bisu Ndao Faye. 5 ñëw. waaw moom mooy ñëw sax incha allah biram cinq secondes man yàbbu ma sama si wala bëri alliance biram minute fi ma teg sama bët la wallahi fi ma teg sama bët waaw moo daan yow xawma ko xamul mais nga man fii du sama place si làmb làmb moo tëral rek te père Birame Ndiaye dafa am yaakaar si man taxaw si micro ñëpp taxaw mu ne booy fii kay at day nekk champion dama ko wax si Balla Gaye feeñul si télé ba mu koy wax nee na ba mu koy wax si Modou Lo abam la ka wax waxu si télé man ko dul dara war naa xool père Birame Ndiaye li muy man combat bi fajar la yeewu day ñëw terrain ba léegi day ñëw terrain ndax man di ma surveiller di ma xool ah, kon kooku naas barke Serigne Touba ama fayam di ko ñaanal gudd fan di wax ko mu bëgg rek dama ñaanalal père bi mu gudd fan maanaam lu mu bëgg ndeysaan man dama koy xool sama yaram daw wër na Serigne Touba kooku du ma ko sant maanaam dama koy ñaanal parce que dafa sonn si man barke maam Marème Seye di ko ñaanal bu wér a wér fan di ko wax lu muy sonn si man barke Cheikh Ousmane Mbacke Noreyni ah wa taala bi rabbi alsi dafal ñu ko Baye wër na maam ma Alliance Birame ñoo sas. waaw parce que ki ñuy bëreel dara boobu ñëpp xam nañ ko ci jom. te mosul yàq bëre. xam ko ci fula xam ko ci fayda nekkul ci ay violence. waaw am teggin la grand bu am teggin la man sama dama koy roy. si teggin beeg lépp kon dara boo jàmbaar la ñuy bëre. waaw di la wax nga la Alliance Birame. Oh. li ma yaakaar si yow su nekkee mu ngi fa. combat neex xaw ma ndax mu ngi fa nag. waaw ma ya li ma yaakaar ne yaa ngi nga ko li nga tallaxu fi yëpp si lam ci micro yeeg lépp ah boo ko dëgalee dinañ bëre waaw lamb ju neex daal gëm naa ne moo dex saison parce que ndaanaan nga. waaw balaa maa woo kenn di woo sama séeréer di wax boogale séeréer mais sim nun oh. xanaa nun nu combat a a a baax nu dam nu fi mi fo alliance biram waaw woo xooyaa waa Njongoloor aussi fu waa Bawol fop maxey xooya nuun i waa Boyar Joof Yoor Fimelaar waa Marloj Saalum ñëpp ma weeta foofu di woo waa Grand waa Grand maa ngi woo ma fiya yëpp sansala bopin déglu leen ma ñëw baaj wala ma defen na may juum ma mota naa lépp déglu leen rek di woo waa Grand Yoff waa sansala ëppin waa parcelle maa leen di woo baax a baax a baax waa zéro heure man awma kenn ku dul ñoom di leen wax xoolal ñu gën a jàpp rek waaw xam naa leen fay ba bis leen barke maam Rémy Seye géem beeg ñëpp nañ toog déglu ma rek ñëpp laay fay incha allah di woo waa Grand Médine bu baax waaw di wax bu Grand Médine ak Bende comme ni ma ko doon waxee ba benn la waaw waaw diggante maanaam Grand Médine ak Bende fi ni fer xaju fa xajaluñ fa nit di woo ñëpp di woo waa Bende bu baax a baax a baax di woo waa frontière di woo waa mbayaar gi di woo waa Cambérène bu baax a baax a baax di woo mafia yëpp daal ku lim jum waa Sida millionnaire maa leen woo bu baax ñoom woo waa Jëppal Dergele waa Angle Mbari waa Rabo Dio ñëpp maa ngi woo waa Liberté 4 maa woo di woo ministre de la jeunesse ministre de la jeunesse ñu ngi koy woo mu ñëw jàppale si boolog yi moom mooy suñu ministre instant yi waaw di ko woo mu ñëw jàpp si bu wér a wér a wér ba Malick Ndour père ba waaw père ba bu dul dara conseil ñi conseil dafa doy di ñaan yàlla guddal fanam wéral cëram Mansour Ba ñoo koy woo bu baax a baax a baax si combat bi kii Aliou Darame maa ngi koy sant Aliou nañ ko cant maanaam ndeysaan day sonn man barke Cheikh Ousmane Nouré damay tëdd ci xalaat Aliou Darame jug entraînement ji war na maam réew say jàppale du xaalis quoi maanaam yëg-yëg nit mu day toog ba ay heure guddi guddi guddi jékki-jékki jël téléphone yëkkati ko woo ma maa ngi koy sant di ko ñaanal wér li muy séenu si ñu yàlla am lu kawe loolu barke maam say di masawu coono ñoom daam seen bégaay mbëri yi amoon combat a garga seen journée bi fomb waaw yàlla nekk lu gën si ñoom di masawu promoteur ak talfa ak ñëpp maa leen di masawu di ñaanal waaw waa jàmbaar tamit xam nga taw feex di ñaan Sénégal jàmm yàgg bi Cheikh Alassane Sène waaw borom jàmmi réew maa ngi koy woo bu baax a baax a baax a waaw di woo Modou Kane ak Kanji maa ngi koy woo production maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si combat bi Elas grand Elas maa ngi koy woo bu baax a baax ak grand Max maa ngi koy woo Modou Gueye maa ngi koy woo bu baax borom maire West Foire maa ngi koy woo bu baax mu ñëw jàpp si combat bi di woo di woo père Max daa fa sir laa mi dama mét dama bëgg a duy stade bi barke Cheikh Modou Kara même loolu waaw di woo Marie-Louise Maram Diouf ñoo ngi koy woo Kéba Kanté ñoo ngi lay déglu booba taya ah, wala yow waaw ah, yow la rek la ñuy déglu ah. di woo Go Faye mu jàll waaw les go bi ñoo woo bu baax grand pind yëpp maa leen di woo di bëgg waa koñ di bëgg père gis bu baax a baax a baax suñu père rek wàccee boobam la Ibrahima Bana moo ñu may courant di leen di bëgg père Cissé tamit suñu papa la fii la dëkk di ko ñaanal taw féex waaw di wax borom Thiès borom Thiès borom Thiès ñetti sa combat la borom Thiès combat bi sa combat la jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net dégg ngeen kàddu yi nga xam si ni moom la Anaconda wax ci diggante euh, moom ak alliance biram di ñaan sunu borom defal ñu jàmm combat boobu ñu ak seeg jàmm que le waaye Khadim Anta Seye euh, diggante Anaconda ak alliance biram maa ngi lay bëggee di bëggee ñi ñuy suivre ci leeral TV yëpp di la bëggee ginnaaw bu ñu sant yàlla jul ci yonent bi sant sunu ñaari waaji di sant moo nooy moo frère PDC Kañ sama waaji di sant Mansour Ba di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ñi gën a àdduna yàlla suñu borom yëral ma xara àjjana làmb neex la la 18 la grand combat la waroon doon sax mais problème mu stade ak date yi moo tax promoteur bi jël ko yóbbu ko ci diggante Mor Kankang ak Youssou Ndour mu nekk ñaari grand combat mu nekk ñoom ñaar kenn ko kenn kenn alliance biram dafa dugg fi parcelle daan fi bekaay anakoundaa dafa dugg bawal ñi daan ko caata bawal moo ko daan kon loolu combat la boo xam ne neex la diggante dër bi parcelle bawal loolu cinquante cinquante la ci bëre ñoom ñaar ndax ñoom ñaar ñëpp seetlu na leen mbapat seetlu na arène ñiy bëree drapeau koo xam si ni mës ta yàq làmb Papa Sow kooku la grand champion la 2002 la ñëw si làmb bi mu ñëwee def na 22 ans de carrière defut lu ñaaw waxut lu ñaaw mu nekk champion boo xamante ni bëlu dara ki wax def lu ne si làmb kon ñooñu buñ jëlee buñ Ibulaay bu jëlee drapeau bu jox ko Papa loolu lu ko war la ndax Ibulaay bu yàgg la ñi ñaan daal bis bi daal yàlla na ci yàlla def ci jàmm ki war a daan daan ki war a daan xam ne làmb yemul ci dimanche mais bis la boo xam ne combat yu neex moo ci am njago euro mbooloo bu bari moo koy drainer moom lay drainer mu dëkk fii Cambérène mbaru parcelle la ba pare ñu jëlaat drapeau bi jox ko ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour parcelle la dëkk unité 18 fii la dëkk promoteur bi dëkk parcelle mbëri am 3 mbëri parcelle yu ci dëkk premier bi nag bi mooy bactam de femme tubaab di ko wax première fois ci làmb ñu koy ñaanal journée bi yàlla na ko yàlla defal réussir sponsor yi nag leen kañ production moo ci borom établissement Touba Darou Rahmane ak Catalina ñoo ñoo jàppagul ci sponsor ñaan ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw na waa Sambour 11 sunu borom defal leen jàmm jëlee leen fa ba mën a dellu seen njaboot mbokk yi di ñaan ñi nga xam ne ñoo si lalu hôpital yi yàlla sunu borom fëgg seen bopp ba ñu si njaboot yi mbokk yi di ñaan réew mi ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci manifestation bi di ay xale di ay ndaw yàlla defal leen jàmm ba mën a delluwaat seen i njaboot te ñu mën a bañ a defati lu leen fay yóbbu mbokk yi di ñaanal réew mi jàmm waaye te di ñaanal ñi nga xam si ni ñoom ñoo faatu ci li nga xam ne mooy euh, manifestation yi yàlla sunu borom xare leen àjjana fi daw si di leen masawu coono bu baax a baax seen i njaboot waaye tamit di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo blessé yàlla ñu jóg ba ñu mën a dellu seen njaboot mbokk di ñaanal réew mi jàmm di réew mi jàmm man la ak naxataa waaye man la ak Birahim Touré léppay leer jërë ngeen jëf mbokk yi.